rapport liggéeykaay yi témoin yenn kaay ni tension politique yi tax na ba suñu croissance wàññeeku benn poñ waaye waa FMI ci biir laas yenn kaay ñu ngi bu baax effort yi nga xamante ni Sénégal def naka wàllum xeex Covid 19 wàllum yokkute bi ci njëg yi ak yokkute gi ci wàllum PIB bi léefa yenn kaay ni atum 2024 suñu PIB waroon na àgg téeméer yoo jël juróom-ñett yeeg lu tekk libération yenn kaay moom dellusiwaat ci fisc bi ni mu tegee loxo ñi nga xamante ni moo di këru liggéeykaay googule moo jëmale wu Sénégal loolee lépp nag mi ngi si biir journal bi di Libération Benno Bokk Yaakaar day mi ngi ci waaju tas du samay kàddu de bés bi jour moo ko xamle nee na Macky Sall samedi bii di ñëw na tànn candidat bi nga xamante ne moo war a jiite coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle yi nam ma amal atum 2024 waaye loolee nag boobu moytul dina tas coalition ndax ndaxte am na ñenn ñoo xamante ni dañ fippu les échos yéenekaay ni xibaar boobule nag Macky mi ngi ko dencal ñi nga xamante ni ñoo di leaderu Benno Bokk Yaakaar yooyu le Vox Populi ni vendredi samedi dimanche du yomb dara bi duñu xamle ni Macky Sall moom war naa dalal tey ji ci àjjuma ji

Macky Sall dafa leen fas mun dugal dugal leen ci li nga xamante moo di poosam ndaxte dafa yor seen yi am na ñoo xamante nag rapport covid 19 bi moo leen épinglé ñooñee nag du ñu a fippu ca jamono jooj nag yor yooyu yéen a kaay ak ñun si tekku ndomb tànk Youssou Ndour ca présidence ak génnam ca coalition Benno Bokk Yaakaar boobule surnaal bi nga xam ne Youssou moom ci calcul rek la nekk ci calcul rek la nekk ak mouvement bi nga xamante jooju mu ñëwaat ak ñun si collectif parrainage bi nga xamante ni daa am lu yees yu ca nekk nee na bi itamit est la ci yenn candidat yi njaga si laa xam bi nee la ñu bëri maîtriser ñun ci mbëkk mi moom laaj mu samp mooy anam milliards yi nga xamante ni union européenne dugaloon na ko si Sénégal nee na moo ko jaaxal milliards yooyu pour xeex mbëkk mi la woon waaye ba léegi dafa gën a takkarnaase sa jamono jooj nag vingt kaay di ñun ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenteelu édition bu màggal Touba journal bi ne màggal gi jeex na waaye police def nag bilan nee na ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn doomu aadama teg nañ leen loxo ñii ci jël alalu jaamur ñii ci gaañ nit te tey ko am na ñoo xamante ni nag ci faat nit te tey ñu ko ñii yàmbaale leen jàppee am na ñeneen ñoo xamante ni dawal te amuñu permis enquête yéen kaay ñëwaat ak ñun ci ñaareelu anniversaire coup d'état bu amoon ci Guinée juróomi fan ci weeru septembre atum 2021 nee na ba léegi Guinée dara doxul demul dikkul bés bi la jour ñëwaat ak ñun ci mbir mu am solo moo di Mohamed Gaye xaafis quraan bi lee nga xamante moo dem ba Arabie jël li nga xamante ni moo di prix njàngum alxuraan bi Mohamed Gaye tey jii bu juróomi waxtu jotee dinañ ko teertu fi nga xamante ni moo di ca aéroport international Blaise Diagne tàggat yaram ak stade bu Boulaye Dia dafa gaañu waaye Formose Mendy moom boo moytul dina forfait ndaxte gaañu gaañam ba léegi wéragul Sadio Mané mi ngi yëkkati ay kàddu ci biir stade yéenekaay moom nee na match amical contre Algérie moom gisewu ko li nga xamante ni moo di revanche waaye nag mi ngi